tey moom du topp saawa ko gën a lakkal mais tey du topp. du topp waa ji la des fois day naan ci ndox moomu. yaa ngi doon junju ba tudd MNF. waaw balaa loolu dafa am euh, élément bi njëkk euh, ak gone la goo xam ne daal dafa réer ay waajuram. Mhm. xam naa Modou da ñu koy jox rek ñoom bu ñu ko séenee après mooy nekk rek communication bi incha allah alaaji Modou ñu doog ñëw ci élément bi. ayca kii def kii moo réer. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñaa ngi leen di nuyu di leen ziare ne xale bi ñuy affiché ci photo bi dafa réer mi ngi tudd daam Dieng ay atam toll ci fukki at ak ñeent doon jàng ci benn daar internat ku ñuy wax ba Badara Seye teenu maam Cheikh dafa day woon nag ca juróomi fan koor gi la fa woon ci daar ja ba léegi daal kenn gisuñu ci dara dégguñu ci dara papa moom mi ngi tudd Youssou Dieng yaayam mi ngi tudd Mame Bousso Mbengue ñi ngi dëkkee Touba Télé Bees ñaan képp ko gis wala ku ci am benn renseignement rek nga woote ci numéro yooyu ñu jërëjëf. voilà kon mi ngi noonu lii moom moom li nga xam ne rek yenn saa yi dafa am ñoo xam ne dañuy am ak euh, yaakaar ci wal fajiri te ñaarit bu lu fi jaar day feeñ kon boog numéro baa ngi noonu gone gaa ngi noonu ku ko gis rek incha allah nga daal di cay woote. Mm-hmm. Mm-hmm. Maimouna Ndour fay gaa ñi dañ ko boole woon ci ñu am ay terrain ci dëkk bi moom nag leeral na mbir yi nam demee hmm. ñaareel bët mooy am na benn dagat dagatee bu ñu def Abdou Mbow ba mel ni kuy recadrer Maimouna hmm. naan ko deel wax loola loo rek bàyyil nettali ak def yëf yooyu yëpp ay xeetu montage loo yoo xam ne gaa léegi mën nañ ko hmm. fi mu toll nii mën nañoo defar émission montage boo xam ne saa day toog fi naan la béti tëjal sa làmmiñ noppi te fekk demeewut noonu ñu bi ñu ko tuumaalee ci terrain yi ñuy wax lam ca wax ñu dellu siwaat comme Sénégal léegi euh, fen daf fi nekk culture ak manipulation euh, boo nee garaawul nga noppi euh, am na ñoo xam ne ndeysaan ils sont de bonne foi mun nañu gëm li ñu leen di wax dafa am ñuy dawal benn tag sur Facebook en ans disant Maïmouna Ndour Faye am na cinq terrains à Wakam quatorze terrains à Rufisque trois terrains aux Almadies six terrains <laughs> à Guédiawaye c'est archi faux Euh, bon ñi ko def nag c'est des c'est des c'est des esprits tordus euh, gis naa campagne de diabolisation bi ñuy def euh, di ko jëmale ci ni ñenn ñi doon na ma doon jaaxal trop ma rëcc si man Maïmouna Ndour Faye à part kër gi ma dëkk aw ma un mètre carré au Sénégal sur toute l'étendue du territoire je n'ai pas eu l'honneur Euh, de voir mon nom figurer sur une délibération te moo ne yelloo naa ko bu ñu ma mayoon état du Sénégal bu ma mayee terrain dama ko yelloo parce que man je suis un entrepreneur euh, je participe à l'économie au développement de ce pays-là 7TV c'est une grosse c'est une grande entreprise fii téeméeri nit ak lu teg ñu ngi fiy xëyee saay bu nekk yàgg naa nag tàllal loxo président Macky Sall ne ko président may ma terrain ma ma tabax siège luwaas bi dafa metti mais je n'ai pas eu la chance donc cette information là elle est archi donc li tax ma koy euh, ma koy euh, weddi dafa am rek ay nit yu baax des gens très sérieux qui me l'ont envoyé euh, ma jàpp ne rek ne ni ñu leen induire en erreur mun nañu induire beaucoup de Sénégalais euh, en erreur euh, tey di wax tamit am terrain du crime am terrain du crime état du Sénégal jox la terrain du crime nañ jaarale yëf yi ci yoon rek loolu la ñuy laaj mais Euh, il faut pas que wut euh, nekk crime dans ce pays là il faut pas que wut terrain terrain bi domaine national la sénégalais yi ñoo ko moom dañuy wax nag bu ñu koy jox sénégal sénégalais nañ ko jox ci anam yu leer yi c'est-à-dire ñu bañ a jox ñee cinquante hectares man may mën a ndur fay ma nekk chef d'entreprise am média war a am siège munuma am sax benn terrain aw ma un mètre carré sur toute l'étendue du territoire national et je pense que euh, première délibération bi may am Bassirou Diomaye Faye moo ma koy moom ma koy may moom moom may may 500 mètres carrés ma tabax ngëndam siège <laughs> donc juste petit démenti Abdou Mbow. mun a bu ma dugal may mun bu ma wax loolu lu ma waxul. yow yaa fi nekk di tudd ay nit may mun a nit day wax lu ñu ko wax loo li ngay wax xamoo ci dara ba pare yaa ngi bëgg a jaxase yow taskatu xabaar comme Sénégal léegi euh, xel daf fi nekk culture. ay may mun a nit day. voilà mi ngi noonu moo nga wàññiwaale ñu retour bi tuuti rek incha allah Omar bun Khattab. boo demee ci internet bi yi nga fay fekk ak yeneen Maymuna nag weddi na li nga xam ni moom lañ ko waxal lim ko ba muy vingt terrain ni am na ko nee na nag amul donte ne bëggoon na ko pour ut fu mu teg teleem ba xam naa bi mu war a président it président Diomaye moo koy may te xam naa dina ko may ndax jigéen la te jigéen dafa néew doole. léegi nag loo gisee daal léegi dëkk bi ñaari ngilim nga ci ñu ni am nga ci terrain yi de. waaw Modou mu baal ñu rek wàññiwaale ñu affaire bi. parce que euh, ñi baax ñi ñi bon ñi ñoo leen yóbbaale. te tubaab dafa ne euh, ce qui se ressemble s'assemble. des fois euh, nit ki s'assemble waaw nit ki suñ borom des fois mën nañ di la juger ci dara fekk ñi nga bokkal langue di ànd ak ñoom moo tax mën nga bañ a mel ni ñoom mais nit ñi njort gi ñu amoon nii dafa jege pouvoir bële maanaam jege ñi ñuy jiñ terrain yi. nit ñi doonoo jàpp ne Maymuna da leen a jege ba tax ñu jàppoon ni tey jii ñooñu bu dee am na ci aussi du ñàkk moom mu amaale ci kon ñi ko sosal wax ni moom kat de li mu doon wax maanaam dafa am ay terrain tey ji weddi na ko te weddi gi mu weddi man gëm naa ni li mu weddi am na parce que moom moo ñëw wax parce que xamul tax bari na des fois ñiy bind ak di wax li ñuy def dañuy làqut seen clavier duñ affiché wu wala ñu utiliser leneen doo xam kan la mooy def loolu te parewul pour assumer ko parce que boo nee diw am na terrain da ngay indi kayit yi mais yooyu yëpp du ci am li ngay bind la rek sànni ñëw teg mais moom au moins am na courage ñëw taxaw wax weddi ni loolu amul kon man gëm naa li may mun a wax léegi nag. Euh, moom leneen li ci des par rapport ak li mu doon wax pour Diomaye Diomaye na ko na ko jox terrain bi tabaxal ko ko mu am siège comme ñëpp. macha allah aywa euh, seetaan nga élément bi ak Abdou Ndaw bi ñu fi taf tafal mu nekk genre montage diabolisation. Mhm. effectivement seet naa li nga xam ne moom mooy euh, li may mun a ndur fay wax ak euh, montage bi nga xam def nañ ko ko moom ak ki nga xam mooy Abdou mbaw terrain yi muy wax gis naa ko si Facebook Facebook ñu bind ne may mun a am na terrain fii am na terrain fële mais man li ma ci wax que mooy que démentir na li mu démentir moom moom maanaam loolu moo ko war devoir la mu génn ne lii amul su dee amul mais ak réew mi nga xam ne réew Sénégal la ak justice bi nga xam ne am na fi su dee li mu wax am na wala amul l'essentiel mooy que justice moom moo koy leeral suñu demee euh, ci li nga xam ne mooy yoon ndax euh, l'essentiel mooy que l'état de droit euh, bu dëgër la wax ne moom lañ fii teg mhm. li ma ci mënti wax daal ci lu gàtt mooy que may mun a nee na amul mhm. nañu bàyyi ñu xool ba xam parce que parfois tamit manipulation yi dafay bëri loolu mhm. diw am na terrain ak rapprochement bi nga xam ne amoon na ko ak régime bi fi weesu peut-être moom moo waral ñu jàpp wala ñu ne moom am na ci li nga xam ne moom mooy yili euh, foncier mais li ma mujjee wax man ma ci jàpp ne dàq ginnaaw waxal soxla la. parce que li mu wax que ni euh, Bassirou dina ma may terrain ma defal sama siège ainsi de dama jàpp ne dafa démentir waaye tamit waxaale na li nga xam ne moom mooy soxlaam. mais ak bu buñ ko muntu jox voilà ndax moom mi ngi xam le que ni état jox la terrain nekk loo xam ne crime la mais na fekk mu jox la terrain boo xam ni euh, askan wi moomuñu ko parce que li indi mbirum foncier yi mooy que ñi nga xam ne ñoom ñoo ci tabax dañoo tabax ci foncier yoo xam ne askanu ñoom ñoo ko moom. d'accord moom moo leen jura tey lii bu ñu leen jox daal dañ leen jox loo xam ne askan moomu ko. voilà Adja. mu mel ne Ndaya wax na ko Basiru lijjanti terrain ndaw si moom di ñaani terrain xam naa ne eh, xuma moom tabar. waaw li mu bëgg la wax. Ah. Mhm, ñu bëgg la wax mais mais mais maa ngi koy wax rek euh, bërki démb même démb sànq rek ci suba maa ngi koy waxaat nañ bàyyi di tuumaal gor yi euh, bu fekkee ni ñi am te waruñu am wala ñu ñi am te teguñu ko ci yoon ñii ñu dénk réew mi ci suuf la ñu gën a xam ñoom dinañu xam la cay yoon ak la ca dul yoon mun na nag li mu def nii man bu doon ma nit noonu lay def xam nga lu tax parce que euh, bu yàggul lañ ko fi agressé beneen yoon aussi mën nañu romb kër jàmbur goo xamante ni wala dara wala moomu ko ñu yàq yëfu jàmbur wala dara comme ni ko xale yi di defee donc am na loo xamante ni buñ la ko jiiñee te nekkul da ngay génn du ragal mais setal sa der la setal sa der la et ni mu def nii man dama ci ànd mais mais euh, dafa am yoo xamante ni gis nga terrain yi ñuy wax ak kër yeeg immeuble yi ñi ko moom ñu ngi ni tekk taxaw dégg gisoo leen ci télé yi gisoo leen ci rajo yi nii rien ñi ko moom ñu ngi toog. te defe naa ne ñii waa impôt et domaine lañ te luñ fa bëgg xam dinañ ko xam donc ñi ko moom. ñoom buñ ci bëggee vérifier wala dara loolu lu yomb la donc nañ bàyyi tuumal nit ñi quoi. d'accord Ndiogu ñoo bokk seetaanandoo mbay mu na mi ñu doon tuumaal génn na leeral daal ni amu ci waaw amul waaye ñaan na nag. nañ ko mm. dimbali may ko te tabaxal ko. macha allah xam nga leer moom. Euh, dafa war ne nañ euh, way laa nga euh, mu bañ a leer. waaw lii de leer na moom lool. leer gi dafa desee nañ. luy lan moo fi kii mooy aw ma. paase lu paase sama kër aw ma fi. waaw carré waaw maanaam bi mu wax ne moom la am noonu këram googu dafa war a wax ne maa ko jënd ci sama xaalis nangam. nii laa ko amee parce que loolu mooy leeral. est-ce du seen kër famille. waa mais na ko leeral rek da ko ci leeralaal. ah yooyu jar na ko. waaw boo demee bay leeral wala du leeraloo. këram la boo demee bay leeral doo leeral waaw mais c'est boo demee bay leeral laa la wax. mais nag xam naa waaw li mu ñu fi mu dëkk waaw mais bu ñu diw am na nga ne bon man de aw ma lu dul fii ma dëkk yaa ngi de kon doo ko dugal nga ko ci mbir yi nga ne aw ma fenn ci dëkk bi euh, un mètre carré ko feneen donc loolu daf doon baaxaat nga ne fii ma dëkk nag nii ak nii laa ko amee. du dëgg. Mhm. bu boobaa day gën a leer ci bopp nit ñi. parce que pareen saa yi tamit euh, xam nga am na foo xam ne mën nga faa am euh, dëkkuwaay boo xam ni xam nga Madiambal mës naa jël dàgg xol ga xaw ma mille mètres carrés. Mhm. xaw ma bëgg koo jox fayee benn kii ndax ab teere ah am na terrain yu représenté ah, mooy booy boobu fi ñëwoon ah, fii ñu invité ko mm. parce que tey fi mu toll nii mën nga am terrain foo xam ni euh, mën na représenté six mille mètres carrés ca dàgga fon ko sàkk feneen wala feneen mm. waaw ça dépend moo tax boo leeral rek euh, boo xasee ba dugg ci leeral euh, mën nga mën na leer naa naañ ñi daal ñaare bi may may mun a mi dafa tooñ waa culture parce que léegi nee na fen day culture ci euh, réew mi man nag loolu xaw ma kañ la nekk culture ci kii bi loolu. ministre non non ko bëgg a wax ni moom. liñ koy sosal ci internet bi dafa bari te loolu. waaw waaw soo ko bon xam nga tey nit mais léew du yow rek maanaam loolu kon du culture ci Sénégal liñ lay sosal bu yow mën nga xam liñ la sosal mais mënoo wax yeneen yëpp ne ay sos la. Hmm. yeneen yi dal ci ñeneen. léegi lu tax nga bëgg a seetal ñu ñëpp mën nga wax ne man dañ maa fenal. Hmm. kooku yow la. mais dañ ñoo fenal. <laughs> loolu waruma ko wax wala déedéet. waaw parce que mën naa am nga waxal son bu loo xam ne bii dëgg la mais man nga dugal ma ci loo xam ni mën na bañ a dekk dëgg. wala nga dugal ci Omar loo xam ne bii mën na bañ a nekk dëgg ñun mën nañu def naka su mais bu may seetal mën naa waxal sama bopp. comprendre mais boo bëggee wax ne li ñuy wax yëpp daanaka ay sos la. donc képp kuy wax it day mel ni euh, mbir moomu tamit euh, dugalaale nañ la ci biir yëf yi. Mm-hmm. waaw parce que ñun ñii ay waxkat lañ. léegi nag ñan ñooy sos ndax ñun ñii parce que tey jii man am na koo xam ne jàpp nañ li may wax yëpp du dëgg. Mm-hmm. waxee pare dañaan menteur fenkat bind envoyé. Mm-hmm. am na koo xam ni jàpp nañ ni moom li muy wax. Euh, du loolu. waaw léegi nag kan mooy. kuy wax luy dëgg ak ku dul wax luy dëgg. c'est pas que mais naa toog ci penc mi daan ni man awma waaw kon kay ko xanaa. wax xam nga ma waaw mën nga moo tax ma ne la na setal boppam rek. mais bu wax ñeneen ñi sangu na kay ba set. sang set maanaam sang na ba jëmmam jëm xam nga tey Abdou Mbow moomu tamit taxaw na ne amut. xam nga Abdou Mbow seetal na nee na moom boppam amul. <laughs> moom wax na ko. yaa ngi dégg ñi amoon te jaay nag foo leen ah. dugal. waaw xam nga xam nga fi mu doon aw ma ku ne day wax aw ma Ah, mais ndax dëgg-dëgg tamit am na wala amul. Ah, loolu yeneen dëgg mais ku am na hmm? assumé am du crime comme ni comme ni ko waxee. am fi non am na ñoo xam ni jënd am na ñoo xamante c'est sûr que ni fi ñuy wax noonu am na ñoo xam ne peut-être am am na ñoo xam dañuy investir seen xaalis ci suuf. am ngeen lébu yi ñàkk nga gis gars yi dañ lay dañ lay jaay. d'accord yaa ngi dégg. fi mu toll nii tey man bu affaire yi euh, demoon ba dugg njaxirat fële mën nañu wax ne yaa ah, sa te fekk rek ba mu fa amee yàgg. njaxirat waaw. mooy foofu est-ce que ki leen ko jaay amoon na ko ci yoon. yooyu yëpp mën nañ ko vérifier. daaw mooy de terrain <laughs> maa ngi vidéo yi boo liggéey bu ñu naa leen wan date beeg yëpp. <laughs> dem na fa. dem na fa bu filmé bañ tab la fa sax euh, kii naka bañ tab la fa chef de quartier. ah non dama ne maay nekk chef de quartier bi. Ah, ñëw bu ma amagul chef de quartier man maa war a nekk chef de quartier bi. ayca sooy. Adja lii lañ indi woon joxante ab dikk ba altine ci euh, kàttanu borom bi. Mhm. Mhm. incha allah merci beaucoup sooy bu Diop li nga indee ci amatina solo donc mu ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon suivre internet yi ak téléspectateurs yi niki noonu yéen aussi ñu remercier leen yéen ñu nu bokkal plateau bi di remercier du côté de la régie El Hadj Modou Diouf Abdou Top lay Diallo ak Serigne Fallou ak euh, képp ku nekk biir solution niki noonu euh, fële ca biir Walfadjri également merci beaucoup vous et excellent week-end. seen patron tuddul Sid Lamine dul tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale